salaamaaleykum salaamaaleykum ami ñi nga xamante ne mooy suñuy mbokki internet yi seytaan saytaan amaat contentement ak mbégte rek jàkkaarloo ki yéen encore une fois waaye nag tey ma seet si koo xamante ne nii ko jara seet si la parce que lépp loo xamante ne nii mooy jàngoro askan wi rek ñu koy jooy moom da koo ŋëpp téye ko ci loo xam ne du ma ko bokk kenn du ma koy waxe saa su nekk rek li ne fàng kenn du ko jeex waaye Mouhamadou lamit Bara Fall mi ma seet si tey bëri ko ci mbartal la pus mu tàkk puusul mu tàkk li waral loolu mooy dafa yor li jamono ji yittewoo ak li nga xamante ne moom la jamono ji soxla ko téye ko ci loxoom Mouhamadou Lamine Bara Fall nuyu naa la. soxna Amina maa ngi lay nuyu di la siyaare bu baax maa ngi ñaan yàlla defal a jàmm xéwal ñu ngi lay fay di wax jërëjëf Serigne Touba jaraw la ko maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp merci. jërëjëf Serigne Touba waaye naka di nuyu Baye Gala sa doomu sëñ Tàkko mu sëñ Fallou sama Serigne boobu di leen fàttali ne ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy Géejawaay kan lañ seet si Mouhamadou Lamine Bara Fall moom fan la nekk Géejawaay waay ngi nekk ci arrêt Double Less bi numéro téléphone am di 77 169 45 45 moom nag mooy ki nga xamante ni mooy borom bio yi te ku xam ne jamono fi mu toll nii lépp lu fi waay utiliser te utiliser wo lii di bio yàq nga ko parce que nag yaramu nit ñi yàqu nañu esprit yàqu nañu xel yàqu nañu mën naa sax yu ci bari dafa yàqu daal te moom dafa ñëw rek pour yéen Mouhamadou Lamine Bara Fall ma gis ne sa yëngu-yëngu dafa ëpp ci li nga xamante ne moom mooy askan wi yaa fi toogal askan wi say produit bio baax fa tabaarkalla macha allah ban idée ak ban xel moo la jox lii nga xamante ne moom nga indi tey di ko def fii Sénégal. waaw soxna Amina xam nga ko xam sëñ Lamine Bara Fall rek xam ni médecin tradipraticien la euh, chercheur la. ñi nga xamante ni dañu jàng médecine traditionnelle jàng la plante dans toute sa globalité surtout les principes actifs de toutes les plantes ak molécules garab yi li nga xamante ni ñun gëstukat la ñi nga xamante ni xam nañu garab gu nekk ban jamono lay faj ci plante bi ci sève bi ci écorce bi pour xam ni sénégalais ñoo le bio moo tax boo gisee bitig bi ñu tuddee que univers bio maanaam àddina bi yëpp jamono ji ñoo ànd jëm ci bio kon ñun it dañu àndandoo suñuy xool pour jàppale nit ñi ci bio li ñuy liggéey c'est typiquement naturel ndax amul benn toxique amul benn chimique macha amul benn toxique amul benn chimique preuve baa ngi nii li di wax saa su nekk rek gis nga tey Mamadou Lamine Bara faal jaayul maay jaay man mii tey may jaay askan wi parce que maa fi fekk nag loo xamante ni gisuma ko fenn fii rek la am yëral ma lii ki nga xamante ne moom mooy bio dentaire Mouhamed Lamine Bara Fall bio dentaire bi lan ak lan lay def ci doomu aadama. waaw soxna Ami bio dentaire bi moom day def blanchiment des dents képp ki nga xamante ni da nga am bëñ bu kadam nga dëkk Kaolack baa nga dëkk Fatick wala nga dëkk Njaareem ñooñu nga xam ni ndox mi dafa naqadi ba saf xorom ba yak seen bañ mhm. ñu nek ay victime te mënuñu ci dara boo dajante ñom da ngay xamni ki kaw la la dekk wala ndiarim ndax bañ ya mhm. loolu nak jeex na blanchiment des dents mo nek ni bañ bi nga li nga xamni da ngay brosso broso benn bouteille la benn pot la ñu def ci xewlu Serigne Touba kep ki nga xamanteni ni am na ko rek boko brosso ci kàttanu yalla ak baaxam ak dem sa bañ wex tal yemul ci ñoñu dong daf ci dem bañ nga xamni ñom ñoy tuux tu tuux mi yak seeni bañ boko boo ko ko ci kàttanu suñu borom ak baaxam sa bëñu wex tal ñi nga xamni seeni bañ dafa kadam ba amuñu fitu sax ndeysaan gis ko war a ree waaye au lieu mu ree day gi en général bañ yee weex ñàkk ba ñuy weex yooyu nag di indi ay muñ ak yooyu waaye ak Mamadou Lamine Bara Fall tout est possible jàngoroy bañ jeex na fi tàkk ayca Mamadou Lamine Bara Fall ma gisaat fi leneen loo xamante ne ni lu yitteel ñi nga xamante ne ni moom mooy ba tey ci xeetu gémmeñ mm. mauvaise haleine mauvaise haleine bi da nag lan lay def. waaw produit bi moom euh, soxna Ami mooy pour mauvaise haleine maanaam ni yow da nga am loolu itam ba tey dafa sonal askan bi ay aaya alxuraan lañ ko liggéeyee boole koo xam-xam bi ñu yàlla may ci garab yi moo nekk nii képp kee xamante ni sa bëñ dafay am xet ndax soxna Ami ñu bëri dañuy wax ak nit kooku taf bakkanam ci mm-hmm. taf gémminam wala nit boo waxee yow pare tëfli wala nit bu duggee seen néeg parfum ndax xetu gémmin am ñoom ni mënatul mënatuñu sax dem ci nit ñi ñii ci télé lañ doon liggéey ñii politique kat lañu woon ñii ci ci commerce lañ doon def seen liggéey yàqu na mm-hmm. ndax xeetu gémmin dan teguñu ko seen bopp nattu lo bi xam ni suñu borom moo leen ko nattoo ci feebar sa febar bobu insha allah rabbi ki xamanteni sa problème gemine ci sa mbàq la nek ci estomac bi wala ci sa put la nek ak wala ci sa bir gemine la nek ci carton yalla buñ la joxe poudre bi nga broso ko ci carton yalla ak baxama yermandem lolu dana dañ dana taggo yow insha allah ya ngi dimbali askan wi de so beugé dégg deug ndax amna ci ño xamanteni ni sen xeetu gemine dafa dem ba dépasser len buñuy wax dañuy préférer def ni mm-hmm. pour ndeysaan ñi ñi jakkalol baña xamni ñom ñi ñi ngi gañ ngañte la nattu la bo xam suñ borom da ko tek waye señ Moudou Bara Fall indi na solution bi solution baangi ni daw si leen gaaw wut si ko cherul lu waay indi ci kattan suñ borom ak mbaaxam mu tombeek la nekk sa poos rek mu defal la ci xéewal ma gisaat fi beneen boo xamante ne ni moom kii moom kumu waaw bii ba tey itim ci Gàmbi la bokk ndax itim ñoo bokk ndey ak baay rek bii moom pour toxkat yi la ñi nga xamante ni dañuy faral di tox mhm. ndax soxna si am na ñoo xamante ne ci famille yu baax a baax a baax lañ bokk seen ndey xamul tox seen baay xamul tox seen i maam xamuñu tox mais ñooñu ay jeunes lañ ñoo xamante ni suñu borom leen nattu ci cigarette te itim ba tey ñooñu ay victime lañu te ñooñu itam mérité nañ leen ñu dimbale leen ñun ñi nga xamante ni dañuy woowee ay sëriñ ñun ñoo jàng alxuraan ñun ñoo xam xam-xam mérité nañ ñooñu société bi récupéré leen ma xalaat ci ñooñu nan lañ leen mën a jàppale ma jël nee naa la mbóot bi ci alxuraan boole ko xam-xam bi ma yàlla may ba tey lii alxuraan la bu ñu liggéey def ko ci bouteille bi soo ko brosoo ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem dootoo jëfandikoo ñoll dootoo jëfandikoo sineebar tux ak naan moom dootoo ko def à ko kooku lu ñu garanti la. kii mooy anti tux anti naan ay ca ñi nga xamante ne dañu bëgg a bàyyi cigarette daw leen gaaw mi ngi nii gis ngeen ko anti tux anti naan ma gis fi beneen boo ne moom tam ci xeetu bio yi la bokk kii mu mel ni dafa yitteel sama caméraman bi ma àndal muy day wër ay day wër ay moustache ki daf mel ni pour moustache la de. waaw ba tey bii moo tudd bio barbe. bio barbe moom soo ko rek comme ni ma la ko wanee nii. kii poudre pommade la bi nga xamante huile huile de menthe lañ ko liggéey ak yeneen i gàncax yi nga xamante ni lañ ci def ci biir. alors lu mel aloe vera mi ngi ci biir lu mel ne ci huile de raisin mi ci biir ak lu mel ne que huile d'argan moom la ñu mélangé defar ko li nga xamante ni mooy yooyu ma lim dafa bokk ci sëqal karaw te nee leen amul toxique amul chimique macha allah rabbi boko ko pompé. ci sa bar bi rek da ngay gis day seuk day mag di développer di seuk comme ni nga ko bëggé ba keroog nga bëgg gis ni baax na nga dogam arrêté sha allah. té bar bu dafa xew bar bi temps yi dafa nekk loo xamanteni ne xale góor yi dañ ko xaw a xewal xale góor dañ ko sax xewal laay wax kon nak ñi nga xamanteni ni ñoom ñoo bëgg bar bu rek daw si leen gaaw ñëw ci ki nga xamanteni moom mooy Serigne Modou Bara Fall waaye ne di leen fàttali ba tey yéen ak ñun rek ak waa Feeling Dakar ñun ñooy ñi nga xamanteni ne ñooy fekk li nëbbu rek ñu daal ko feeñal li nga xamanteni moom la askan bi soxla ñu ne leen ko fàng ne leen ko dàññ ne aca jël leen yéen a ko moom bokk leen ko kenn kii mu mel ni pour jigéen ñi la pour sama classe gi nga xamante ne ni dañuy soxla ay xeeti baax baax ndax teg jigéen dafay baax lenn lu nekk sa yaram rek lu lay déranger sëñ Modou Bara Fall dafa indi solution bi muy anti vergeture sëñ Modou Bara Fall dama bëgg rek nga jox xale jigéen yi lay seetaan kii naka lañ koy jëfandikoo. waaw soxna si bii moom anti vergeture la ndax jigéen ñu bëri réew daf leen sonal réew. jigéen ñu bëri euh, dañu dem après accouchement ñu seen suufu biir wala seen biir bi am ay réew. ak xeesal. xeesal dafa yàq seen yaram. mais surtout ñi xam te ni seen mbag mënatuñu sol yére bu yëre bu. débardeur wala dara mënatuñ ko sol ndax réew. ñii xeesal bu yàgg itam dafa dem ba kii mais képp ki nga xamante ni yàlla def na réew am na ci yow te dérangé na la am ñoo xam te ni itam réew dañ ko bëgg aussi ah. mais ñi xam te ni nag dérangé nañ leen la ñuy waxal ci kàttanu yàlla bu ñu ñëwee fii ñu jox leen produit bi cherul. Mm-hmm. ci def nañ ci tawféex. képp ñëw rek boo commandé même à livraison dañ la koy livré. loolu am na solo comme fépp fu waaye mënti nekk ci àdduna da ngay jël numéro téléphone bi nga xamante ne moom mooy numéro sëñ Modou barak Fall di 77 169 45 45 ci kattanu yàlla soo mënta déplacé wu ñëw fii nga xam ne moom mooy géejawaay da lay booleeg ñi nga xam ne ñoom ñoo ay livreur am ñu fekk la fa nga nekk jox la li nga xam ne moom mooy sa antivergeture kon nag sama mbokk jigéen ñi daw si leen gaaw parce que lii nii dafa am yitte am leneen lu ma gën a yitteel nag loo xam dama ko fee fekk loo xam dafa nekk euh, ñenn ñi mu seen biiru néegu sëy te mënuñu koo wax am xale jigéen yoo xam ne sëy nañu ba tas te suñu borom def na ne xamuñu luy bànneex sëñ Modou Bara Fall ne damaa dikk nag pour nag defal leen li nga xamante ne moom mooy faj seen ajo faj seeni i lëmp-lëmp parce que du lépp lañ mën a wax ci kaw mais kii il faut nga décortiquer ko pour askan wi xam ko. waaw lii moom euh, soxna Ami boo ko dee xool actif plus la tudd gel de lubrifiant la actif plus ndax dafa am jigéen ñu bëri ñi nga xam te ne dafa am feebar bu leen dal. te mënuñu ko joy mënuñu ko wax ci ko ñun dañuy jouer rôle premier psychologue de cette société Madame, askanu Sénégal bu amee problème fu muy njëkk xalaat mooy dem ci sëriñ bi waxtaan ak moom mhm. te dañu bëri ñu ñuy ñëw diñ ko wax ñu def ci gel de lubrifiant pour les femmes frigides femme bu frigide nag mooy jigéen bi day sëy te du am bànneex te dafa Sénégal man je dis j'affirme que 60 des femmes sénégalais marie ñoo ngi sëy te amuñu bànneex ci seen sëy te fii rek la ñu ñëw géejawaay arrêt Double Less kër sëñ Bara di fi wax. kon gel de lubrifiant bi macha allah rabbi dañ ko liggéey naturellement ba bépp jigéen buy ànd ak sa borom kër di sëy te amoo ci bànneex buñ la ko joxee di nga ci gis sa bopp. ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem. incha allah xam nga nga ànd ak nekk sa borom kër di sëy te doo ci am benn plaisir au contraire ay metti ak ay remords ak ay regret nga ciy am loolu bëri na tey jii li mu indi ay problème ci société bi. Mm-hmm. kon bépp jigéen buy sëy amoo plaisir ci sa sëy voilà le remède incha allah. ay ci remède baa ko kon ñun ñenn xale jigéen yi seen coono àdduna jeex na parce que nag ku ne xam na ne sëy di ko yëg dafa bokk ci société bi sëy di ko yëg dafa bokk ci doomu aadama kon nag sëñ Baara indi nañu pexe indi nañu solution gaaw leen gaaw woo ko rek ci numéro bi nga xamante ni moom moo affiché wu nii ci kaw gel actif bi di 77 169 45 45 bu ngeen ko ci woowee rek seen aaju day daal di faju ci saase ak Serigne Bara Fall tout est possible dafa mel damay daal de xuus rek jàll ci ñi nga xam ñoom ñooy góor ñi de. waaw soxna Amina ak yow <laughs> yow moom daaka naa da nga bëri xam-xam xanaa boo bëggee jigéen ñi foo nga ñëw ci góor ñi ah xam naa ne kon góor ñooy sa xarit waaye góor ñi ba tey am na lu am solo lu ma leen dencal ndax dafa bëri ay góor ñi nga xam ni ay jeunes lañu man ci jeunes yi laay njëkk commencé. Mhm. ñi xam te ne amaguñu sax jabar. jamono ji phénomène pornographique ak seetaan ay film ci internet def leen jural problème. yàq na seen life. parents yu bëri ñëw nañ fi jàmbat ko ñi seen doom dañ leen di bett ñuy seetaan di porno mhm. di masturbé wu. ba loolu andi leen effet secondaire moo tax ñu naan góor ñu bëri léegi bala ñuy am vingt ans sax yoom mhm. parce que porno bi ñuy seetaan di masturbé wu moo bëri. effet masturbation effet secondaire yi mu jox tax na xale yu góor yu bëri seen sexe yi dafa tuuti ñii dafa ndaw ñi bës nañ ko fowe ko ba mu damm ba jàdd xam nga loolu doy na waar. waaw loolu doy na waar. léegi nag produit bi mooy redressé képp ki nga xamante ni sa sax dafa dëng wala mu jàdd wala mu tuuti bi moo koy faj. rawatina nag ñi nga xamante ni ay mag lañ daan jël ay aphrodisiaque bëri na paa yi nekk ci grand yi dañ daan def natt aphrodisiaque yi. natt aphrodisiaque paa yëpp dañ ko def bëri na ñu ko daan def ci ñoom di jël ay aphrodisiaque ñi jox na leen diabète ñii am nañu tension ñii am nañu insuffisance rénale bii nag sans toxique sans chimique pommade la kese booy diw ci sexe bi mu mel na nga bëgg sa soxna di ci gis boppam. kon nag fii la am kër sëñ Lamine Bara Fall mooy pommade bu wér bu wóor ni képp ku ko utiliser dañ ci gis sa bopp barke borom Tuuba. ay ca dégg nga ni mu ko waxee te feebar bi mu wax nii dafa mel ni loo xamante ni askan bépp dañ koy jooy dafa mel ni xale jigéen ñu ci bari amatuñu satisfaction ci seen jëkkër ndax lu ko waral mooy salaamaaleykum salaam yegg teer lii soxla wuñ ko dañoo soxla dañu yëg suñu bopp bu baax a baax ay ca daw si leen daw si ngi nii yëkkati ñàkk romb ci réccu du kenn sëriñ Modou Lamine Bara Fall dong la sëriñ Modou Lamine Bara Fall mu mel dama gisaat leneen loo xamante ne nii diw bopp la diw bopp bi pour jigéen la wala pour góor yëpp du bopp bi moom day dox pour góor unisexe la. pour góor ak pour jigéen. dafa am jigéen ñi nga xamante ni ñu bëri seen cuir cheveux bi nii leel yi dafa daw ñii am nañ karaas ñii am nañu feebar yi nga xamante ni dafa tax seen karaw yi mënatul sëkk wala mënatul màgg ak cheveux naturel yi ñuy këppoo lu bëri perruque yi te xamuñu ni loolu day dagg karaw. ñi nga xamante ni nag samay mbokk góor lañu dem nañ ba am 40 ans leel diggu bopp bi leela leela leel ba dañuy sax rus foo leen fekk ñoo ngi dëppoo mbaxana wala ñu lëbboo kaala ndax leel. fii la produit bii moo koy faj incha allah képp ku sa diggu bopp leel muy góor di jigéen incha allahu rabbi dana mel ni nga bëgg ci kattan yàlla. Mm-hmm. ak góor ñi xam te ni sax dañuy rasta wala bëgg na seen karaw yi gudd bu baax. macha allah bu ñëwee fii rek am ko te tawféex rek lañ ci def. macha allah voilà. macha allah tawféex rek lañ ci def dégg ngeen li nga xam ne moom la wax ci produit bi yëpp kon nag sëñ Modou Lamine Bara faal kenn du moom ci mim réew ma gisaat fi beneen boo xamante ne savon savon lan la tudd gowe. waaw savon gowe. ah gowe daa am savon. waaw xam nga gawe ci naturel la bokk ci plante gawe ku ko xam-xam ni plante la plante naturel la mm-hmm. jigéen ñu bëri dañu bëgg gawe ndax xetam gu neex mais nag gawe am na yeneen euh, euh, molécules yi nekk ci biir garab mm-hmm. yi ci biir gawe am na yeneen principe actif yu ci nekk yi nga xamante ni dafa baax surtout ci ko am ndoxum siti wala ki xamante ni sa peau dafa déréglé muy góor muy jigéen wala jigéen bi xam da nga doon xeesal sax ba sax der yàqu savon gowe daf cee baax te rawatum na gowe bi dañ ko composé boole koog mbër bëf gowe ak mbër bëf la ñu boole moo nekk nii muy savon gowe bi bii moom sénégalais yi dañ koo bëgg ba gémewuñu ko mooy meilleur produit bu ñuy jaay fii savon gowe bi macha allah dañ ko bëgg sénégalais yi dañu bëgg savon bi kon ku ko xamul woon rek yaa ko xamul mais bii moom c'est le meilleur. savon gowe bi da koo tënk sax waaye dafa am ay yeneen meññeent yoo xam dafa ànd ak moom ndax dafa ànd ak mbër bëf ànd ak tuluku na ànd ak li nga xam moom mooy lem ànd ak li xam ne moom mooy beurre de karité kon savon gowe bi composant yi ci nekk rek waxuma la dara mais benn bi rek day faj rawatina nag mu boole 4 ba cinq yëf fas yéene ko def ci benn bouteille rien que pour yéen kon daw leen gaaw kii nag moom mooy sëriñ Modou Lamine Bara mu mel ne nag mi ngi fii nga xamante ne moom mooy Guédiawaay numéro téléphone am di 77 169 45 45 képp koo xamante ni da ngaa soxla ci yii produit rek te mënoo cee jot si ñëw ba fii da nga koy daal di woo mu daal la booleeg livreur mu indi la li nga xamante moom nga soxla fekk la fa nga nekk ne la ko jàpp sëñ Mamadou Lamine Bara Fall xam naa ni faaw ñu ñëwaat ndax li fi nekk ci ay produit kenn xamul nu mu toll te dañ ne li duufandoo ci nag cin bi dañ koy dagg rek waaye dañuy ñëwaat encore incha allah xanaa rek bàyyi la nga tàggoog nga xamante ne moom mooy ñi lay waaw xam wax leen rek ni deuxième partie kon mënut a ñàkk comme ni ko annoncé. il faut ñu dellu si waat fii yi yeneen ndax fi bëri na yi fi mën a wax ndax am na façon saabu boo gis am na fi. lu ne am na fi liñ fi mën a wax sax dafa bari ba ci feebaru prostate yeeg lu ne mën nañ ko fi wax ñi am sinusite feebar yu bëri mën nañ ko fi wax incha allah xam naa ne foog ñu def numéro 2 bu soobee yàlla ñu gën a yaatal gën a dugg ci émission bi ci kàttan yàlla maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla na yàlla dolli jàmm xéwal barki borom Tuubaa nag bi yëpp xajandawul ci cin bi waaye dañ koy dagg ndax dañuy dikkaat ak yéen ci ki nga xamante ne moom lañ seet si woon tey ndax doyul li nekk kenn xamul nu mu te dafa baax askan wi jot ci jël seen wàll rek kon nag émission baa ngoogu saa nekk nii lay demee di am contentement ak mbégte ci yéen ñi nga xamante ne nii yéenay safoo Feeling Dakar allez bye bisous. Feeling Dakar nos plateforme d'information.